Cissé Cissé Cissé eh. <laughs> mais Cissé mais Cissé mais Cissé gars yi nee nañu actuellement yaa ngi lëmbee biir Touba liste yi yaay se ku la neex nga tànn teg ko ñi ne ne da nga jël nit ñi puus leen lu la ñëw la koy wax yow nag yaa fiy toogal sa bopp représenté sa bopp li leen tuumaan ndax am na war a Cissé el pistolero Cissé waa dama ne man de Cissé Lo ñi ma xam xam nañu ne du ma nitu caaxaan ñii di yàq sama der di wax leen ne ba ma leen di woo ne leen Macky Sall day nekk président ñoom ñëpp dañoo feete fale man Cissé Lo man maa doon dugg ci kër yi man Cissé Lo maa doon wax ak nit man Cissé Lo maa doon dugg fu ne ñu naan ma waa ji nga topp bàyyi Ablaye Wade doo ci am dara tey nag du bàyyi ba affaire yi metti ñëpp ba affaire yi méttee ñëpp won ma ginnaaw mu neex ku nekk commencé ñëw di marché ba tànk naan ma Cissé yaa baax loo ma ca ndaam yaa baax yow yaay yaay taalibi sëñ bi yu leen di ma ko dama ne man Cissé loo la may def ci sa liste yi nga xam ne ñaa ci war a def mooy gor ñi nga xam ne ñoo àndaloo ñoom waaye nag dafa am loo xam ne du ko nangu mooy nit ñi dañuy ñëw di yëg sa kaw naan la bëgg dama fa nekkee ak Macky Sall yàgg na damaa yàgg toog Macky Sall di jéem a naxe man loolu laa ne duma ko def am naa sañ-sañ nag man siisaloo man mi nga xam ne maa fi toogal Macky Sall fii APR fii ci Touba ma gagné ki nga xam ne moom mooy comité bi gagné fi nga xam ne mooy coordination bi dama ne gagné région bi waaye su ma neexee nag ña ma àndaloon doon def ak ñoom ma jël leen sama liste waaye nit ñi leen metti ak leen naqari mooy la ñu foogoon ne mooy am amul te man Cissolo nag maa doon jënd sama ataay di woo gaa yi ñu ataay maa doon jënd sama meew gaa yi di meew may jënd samay ginaar yu baax samay cuuj yooyu nga xam ne dama ko yoroon ba far ba liggéey ko cuuj a dee dama ne ba mu dee kenn ñëwul jaale ma ne ma yow Cissolo euh, say cuuj dee na si gindigaale kon tey bu ma demee ba samay cuuj màgg may seeñu di noos di soos di noos ak ñi ma doon àndal waaye dama ne su ma neexee def lu ba neex man Cissolo nag lu lañu ma koy tumal lu la ñu koy wax nan day bu mbaayeg si sa loo ak lii dafa commencé yëkkati mbagg dama ne maa tey ndax ba may ànd ak Macky di leen woo fa lañ ma gàntal ña nga xam ne ba may woote ñëw nañ nag dama ne ñooñu laay sedd dégg naa ah, ñu naan jànq ba ne ci kër ga mu ngi ci liste dégg naa ah, ñu naan ah, ko koy jaay ca koñ ba ma nga ca liste ba dégg naa ñu naan ay gorob waaye dama ne eh, man la man si loo man la man dey kenn mënu maa jaxase Macky man si sa loo kenn mënu maa jaxase Macky te la leen naqari nag yàlla nañ ca dem bu ñu demee ba élection ye ngeen xam ne man Cissé solo danaa gagné commune Touba gagné Touba gagné fi nga xam ne mooy Diourbel boobaa ngeen xam ne man si Lo dama ko ndaw te danaa ko féete ci ci baatin ndax nag ab taalibe dëgg li muy def xam nañ ko ay cant lay def su deful ay cant bu génnee Touba bu ko neexee def ginnaaw Touba wara a ca côté Thiès ak côté yooyu nga xam ne ñoo dem nga def fu la neex te li xew ci jamono ñëpp xam nañ ko lenn rek la ku am sa mbégte ci réew mi noo koy wanee mooy nga door a bu dee nag ab taalibe dëgg nga defal ay cant bu dee nag ak taalibe boo xam ne nag wax dëgg yàlla da ngaa bëgg bànneexu feccal feccal li yomb na waaw la ma koy defee yomb na ndax fecc mi nga xam ne moo tas réew mi te xale yëpp bëgg ko di caqagun gii nga xam ne wax dëgg yàlla man siise néew ma ne mën naa ko waaye naa ci jëm loo mën kon dama ne samay noon yi nga xam ne ñoo nekk tubaab ak yàq dama bëgg yéen seen bopp ngeen commencé tàccu naan cak cak cak cak cak cak waaye dama ne caqagun waay <laughs> man si sama ko def ni caqagun waay ni caqagun waay ni caqagun waay ni caqagun waay ni caqagun waay ni caqagun